Habib Dieng Ndamlé jërëjëf balaay may tàmbali damay d'abord baalu ak ñëpp parce que tey ñëpp xam ne ñu ngi waajal lu mot semaine pour ñëw fii Thiès Nord route de Dakar 2 jaam ak pexem yàlla ak dogalam lii day wanewu attachement bi ngeen am envers Habib Niang envers son excellence le président Macky tey boo foo dem tey mu ngi taw jeunesse baa ngi fi femme yaa ngi fi mag yaa ngi fi bu mu ñëw sax ñu ma président booy ñu soof sax dañuy ñëw tey il faut nga ñëw moo tax ma ne gars yi dañu jël parapluie yëpp teg ko fee parce que man aussi du ma bàyyi sama jeunesse nekk si taw bi may ne ma parapluie di ma protéger la du ma ko nangu kontaan bu baax a baax si wàllu accueil bi nga xam ne tey def ngeen ko yaakaar naa ne li may faral di wax waa Thiès noonu c'est pas la politique qui nous lii du politique moo ñi boole. balaa may continuer ça aussi damay remercier aussi je disais même des amis des partenaires belges ñi nga xam ne dañ fi ñëw au Sénégal tombé si événement bi di remercier kii nga xam ne tey moo leen fi indi mooy Souleymane Sidibé di remercier toute la jeunesse de Thiès Lor, toute la jeunesse, je dirais de Thiès. lii day wane woon Habib Niang nekkatul Thiès Nord parce que fii ni ngi toll si Thiès Est depuis suba ba léegi tey xool ngeen mu ngi taw la jeunesse est là man sax si boppam dama ruus tey moo tax ma ne wax du war a gudd Thiès Ouest Thiès Ouest de li may faral di wax rek mooy ñun lenn moo ñu tax a jóg mooy jàppale askan bi nekk son excellence derrière son excellence le président Macky xam ngeen ni ñu ngi dugg ci ay élection yu am solo moo élection législative yaakaar naa ne man du un politicien bu xam ne politicien événementiel événement ba politi événement bu événement laay génn man yaakaar naa ne àjjuma fu mu jot tëj naa sama biro maa ngi Thiès di nemmeeku sama askan di sama dëkkandoo di nemmeeku waa jeunesse thiessoise lii day wanewu engagement bi ngeen am lenn laay ñaan bu ngi taw nag vraiment maa ngi jégalu bu baax tey lii ngeen wane tey won ngeen seen conviction lenn lay ñaan mooy le 31 juillet li ngeen mobilise nii yéen ñëpp ne ngeen dem ngeen votel la liste di Benno Bokk Yaakaar xam nga pourquoi may wax lool moi je suis pas candidat le président de la République a choisi ses propres candidats c'est comme que Habib Niang moo choisi ses candidats le président trompé wul si ay candidats yi nga xam ne ñu mu jël jël nañu ay jeunesse bu xam ne ay candidats yoo xam ne ñu ngi dëkk si biir gox bi xam nañu les réalités du pays xam nañu les réalités de Thiès incha allah rab bi vous le promets bu yàlla defee jàmm élection yi jàmm jàmm jeexe jàmm salaam yëpp lu jël inondation nag boo xamee mbiru yàlla la États-Unis moo xam ne ñëpp xam ne moo ñoo ko ëpp puissance si monde bi day inondé kon dee Dakar bu inondé coow am ay ndax la naxaay la donc léegi ñu ñaan yàlla li ñu doon ñaan yàlla yàlla wàcce taw yàlla wàcce na taw ne ñu ñaan bu doon tewu taw jàmm lenn laay ñaan vous la jeunesse ne vous trompez pas xam leen fi ngeen di teg seen tànk fi ngeen teg seen loxo bu leen nangoo dugg si ay politiciens yu xam ne saa waay c'est des politiciens bu xam ne toujours violence ñu woote la violence na rek la liyee violence jëmewu réew kanam la mooy jëme réew kanam mooy un programme très adéquat un programme bu xam ne tey mun na jëmale la jeunesse kaw je pense que toujours yéen gis ngeen le président Macky Sall est en train de poser des actions barki dem gis ngeen li ñu gën a neex mooy le président génn si taw bi di dem inauguré ay bus de cadre public bus yi nag suñu ay bus la moo tax je profite de de lancer waale aussi le DG de cadre public nañu góorgóorlu entretien bu amee si ñoom la kilifa bi def na lu muy def beneen bi aussi mooy li may ñaan vous la jeunesse thiessoise ñun xam ngeen ñu juróom benn at ni ngi nekk ak yenn xam ngeen ñu quest ko qu'on est de faire lu ñu mënul ñu ngi koy def lenn laa leen di ñaan mooy yéen ñëpp na ngeen mobilisé wu le 31 juillet suba teel ngeen teel a yeewu dem jëm voté ji la liste di Benno Bokk Yaakaar tey si la liste Benno Bokk Yaakaar gagne à Thiès dina ko Thiès dina émerger ça je vous le man duma dugg si ay jaaxaar kan neexuluma kenn joxuma dara dama commission laay demee moo tax ma xam ne tey le président est très ambitieux am na ay programme le président buñ ko mayaatee li muy def mooy dina jël Sénégal dina jëm kanam il est en train de poser les actes moo tax je di le dis bu leen kenn yóbbaale bu leen nangoo ku leen si woo si waa violence képp ku xam ne maanaam yow woo ne leen si wàllu violence na ngeen bañ parce que yaakaar naa ne keroog gis ngeen affaire jantalman bi ma def je me si déplacé en personne. allez voir le maire de Thiès bien que bokkuñu ko pour lan pour accueillir la situation di ko massawu si affaire bi. rafet na par lool barki démb sax ndeysaan envoyé na ma message nee ma Habib Niang geste bi nga def vraiment sama me va au cœur ma ne ko dis-toi que tu es le maire de la ville le président de la République bu duggee Sénégal bu duggee si biir Thiès tu es le premier à l'accueillir qui est le ministre de la ville donc mu defar absolument mooy ñun ñi xam na ay ndaw président nañu mooy li ñu war a ñëw tey massawu wula ñu ngi sant yàlla parce que violence bi jógewul suñu camp ci seen camp la jógee et aussi maa ngi sant vraiment waa jeunesse waa Thiès noonu yaakaar naa ne budul woon terrassement biñ fi def ah fii dina gën a metti on a posé des actes yaakaar naa ni làmp yi tàkk na j'espère incha allah dinañu continuer aussi à vous accompagner surtout aussi la ASC xam ne Thiès noonu dafa fekk muy taw mais yéen équipe bi li ma leen mënoo préparé naa leen ay mayo ay godaas pour jàppale leen si lu muy taw ni moo tax rek mais les les choses sont disponibles au siège je pense que le coordinateur des jeunes dina leen jox seen ay mayo dina jox seen ay godaas demee boo leen jaaree siège ba di nga récupérer seen affaire seen matériel incha allah rabbi donc le président des jeunes le coordinateur des jeunes la balee dans ton camp demain matin ñi nga xam ne dig dig bor la diggoon na leen ay mayo diggoon na leen ay gojaas ay ay ay godaas digal na ay yëpp dinañ fexe jàppale leen li may faral di wax aussi gis ngeen euh, man action noble laay posé kenn joxuma dërëm j'ai des amis j'ai des partenaires pour le bien-être de Thiès di baalu yëpp di àq yëpp di kontaan si étudiants yi tamit gis naa seen mobilisation kii wax na ko fii y'a beaucoup d'étudiants qui sont la yaakaar naa ne étudiants yi gis nañ fi nga Habib ñaa féete je dirais en toute sorte la jeunesse de Thiès gisee ngeen ce que représente civil bi lan lay def lenn rek laa di ñaan mooy bu leen kenn yóbbaale yaakaar naa ne bu leen kenn yóbbaale surtout pour la violence yaakaar naa ne li ñuy wax mooy ku mun si morom duma noo dumee nit mooy si wàllu programme man ba léegi gisuma kenn ku fi présenter un programme adéquat un programme juste lan bu wane ko comment faire maintenant pour jàppale la jeunesse na laa gis rek mooy violence rek li Macky Sall def na lii Macky Sall def na laa loolu sa pas ça qui mooy jëmaleewu kanam moo tax may ñaan vous la jeunesse vous représentez 80 pour cent de l'état na ngeen fexe ñëpp ngeen mobiliser wu ngeen informer seen camarades yi yi ñëpp ngeen wax ne bu ñu mayee Macky Sall incha allah président Macky Sall législative yi mu jëlaal ko yaakaar naa ne ñun si bopp dañoo Macky Sall doy ñu doon li ñu dinañ ko wax par force su neñ koy waxee loolu laa di ñaar mooy ma frère gën leen jàpp la baal mu ngi taw nag wax bi bëri wax vraiment maa ngi remercier ñëpp di remercier les femmes di remercier la jeunesse di remercier tout le monde di remercier aussi les notables di quartier Thiès noonu loolu la amul lu may wax parce que comme day taw maa ngi baalu ñëpp ak nag si ndox bi di leen jox incha le 31 juillet ñun ñëpp di tasewaat au siège pour fêter la victoire di Benno Bokk Yaakaar jërë ngeen jëf wasalaam. merci président merci président kontaan nañu. waaw jërëjëf. waaw.